comme actuellement magi pasif ya dan région yëpp lan lan ko installé pour jàppale comme ni dan daan wax au début Pastef des parti xale la xale yo ko jiite ñoo nekk si ginnaaw Sonko voilà ñun ñu dem ba xool ne lu mag tam dina am lu sa manqué mag ñi jóg nag pour jàppale wane ni ñoom it ñu ngi si eh, ginnaaw Sonko voilà sunu experience ak sunuy sagesse pour accompagner les jeunes accompagner Ousmane Sonko sur le projet de le départemental. le départemental. aujourd'hui l'Assemblée assemblée générale nous avons fait a depuis bi commencé à passer. voilà assemblée générale bi tam li ko actuellement aujourd'hui dañuy def bureau provisoire comme une communauté de provisoires. provisoire le temps ñu yóbbu bureau au niveau du conseil euh, national. buñ ko valider ñun tam sunu liggéey mooy dugg quinze communes la trois yi ñoo nekk euh, euh, euh, biir Thiès léegi nag ñu dugg si communes yi bu ci nekk ñu jéem fa installer cellule magi Pastef certification bi moom magak ak xale jigéen góor ñëpp la wax ñëpp la wax ñun nag magi Pastef danoo bëgg commune bu nekk am parce que lu ma la fàttee wax au début mooy magi Pastef dafa nekk ba structure boo xam ne dañoo am seen autonomie en donc waaw nekk si biir Pastef mais am seen autonomie boo xam ne dañoo mën a créer yeneen i structure yu jàppale xale yi waaw yëpp da ci biir la jëm rek kon nag bu nu massifier tam ba taxawal magi Pastef si commune yi moom it dañuy ànd xale yi rek parce que ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi basé si benn cellule boo xam ne ay xale ko jiite wala ña nga fa. Mhm. ñun de mokk ak bañ a mokk ñun Sénégal yëpp dañuy dàbbale waxuma la Thiès mais euh, territoire Sénégal yëpp dañuy dàbbale waaw objectif bi daal mooy projet Pastef jëm kanam mhm. ak képp kun si mën a nag àndal parce que coalition bi day am si si politique mhm. parti buñ si mën a àndal rek ñun suñu objectif mooy def li nu wax après bu keneen defee li ko wax réew mi jëm kanam loolu moom euh, yàlla leeral na ko complot moom wax dootuñu ko sax ŋaang parce que looy looy euh, défendre day fekk que leerul mais actuellement fii fii ñu toll nii réew mi ak fii dossier boobu toll dootuñu wax sax waxu complot parce que lépp leer na ba mu sotti waaw ñun nag objectif mooy accompagner Ousmane Sonko ba mu projet bi Pastef teg loolu moom kenn waxatu ko ñett troisième même ñetteel sax dañ koy tere fii Sénégal léegi waxatu mag nag troisième cas dina ko tere duñ ci toll ba toll sax mhm. ba toll sax bés bu ñu la mhm. dinañu xam euh, troisième mandat moom amul Sénégal <laughs> ah non àndul ak politique euh, mhm. violence ñun euh, ku ñu xam voilà fayda rek ak yoon ak ak dëgg mais ay euh, defante kii yoo taxu ñoo jóg